fay bañ a fal gouvernement boo xam ne ñii fa ñuy mer moom ci boppam am na nu mu bëggee jege ñaa la Amadou Ba tamit am na nu ñu bëggee te wàllu politique bi fa ciy bàyyi xel bañ a tas wala néewal doole benn bokk yaakaar l'observateur na ko hëy faa bëgg nga wax wax ji mu leer gis nga njiit réew Macky Sall li ko dal fi mu toll nii du dara lu dul nguur guy jeex kilifte fa fay ñàkk bu njëkk ba njiit réew mi su waxaan wala muy def du faale kenn waaye fi mu toll nii fay jël dogal gaa yi xiiral mu deltu ginnaaw te gaa ñi fi mu toll nii ñu bëri ci ñoom ragalatu njiit réew Macky Sall léegi nag fay bañ ñooñu mer génn loolu moo tax muy waaj aka waajaar rek ci tabb gouvernement bi tribune yéen a kaay na leen hëy yéen it faa leen di wax leen gis nga sénégalais yi ñoom fa ñoo xaaru dara ci gouvernement bu bees boobu ayow gouvernement boo xam ne ñetti weer wala ñeenti weer ngeen fii def est ce que ñooñu mën nañoo andi benn coppite ci jafe-jafe yi sénégalais yi dund góorgóorlu yi dund gu cher gi faa leen di laaj rek fukki at ak ñaar loo mënta lijjanti ci ñeenti weer mën nga lijjanti ndax courant bi fay wàññeeku ndax ndox ndaw ñi fa ñee xam xëy ndax ëtt yoon dana gën a doxal yoon a kaay ne faa leen di laaj rek yéen fas yéene gouvernement campagne la 2024 pour ko wateel Amadou Ba yaw seetal yéen a ngi fàttaliku gouvernement bi ñu fi faloon ñu ne gouvernement fast track la maanaam gaaw saafara jafe-jafe sénégalais yi ñu andiwaat fi beneen gouvernement tuddee ko gouvernement wu combat ci jafe-jafe sénégalais ba léegi furaax daal di xëddem dara leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñu ja mooy ne Ousmane Sonko ginnaaw suba ci alxames ji ci la ëtt attekaay ba nekk Ziguinchor di attee ci seppi gi ñu ko seppi ci liste électorale yi te mu bañ ne du dëgg du yoon ba tax mu kalaame woon ci wàllug yoon yoon le mandat yéen a kaay ñu ko xamal turbine yéen kaay ne alxames kay ci la Ousmane Sonko di xam ndax fañ koy delloo ci liste électorale bi wala boo génnee giñ ko génnee fañ koy wéyal te loolu su du baax ci moom moo ne du mën a bokk ci wote yi ba tax yéen a kaay bi ne ëllëg Ousmane Sonko ngir bokkam ci wote 2024 yi nekk candidat mi ngi ci loxo xattekat ba ñuy wax Saba Si Fay yoor yoor yéen a kaay na ko faaleen ci yokkal Mame ñaari banque yoo xam ne fa jàpp ne Ousmane Sonko am na fa xaalis ngir ñu dajaleel ko ñaat téeméeri junne ak juróom-ñett ci ay millions ak lu na ko ndàmp yàq der ak Mame Mbaye Niang ca mbiru Prodac ba ba te yor yor yéen kaay fa ñoo xamal ne kenn ci farandooru Ousmane Sonko yi Maimouna Sadio ñu gënoon koo xam ci munaas fa nekk ab patriote ba ni mu génnee àdduna man ma génn foofu dem ci Vox Populi fekk fa Khalifa Sall fa faa leeral diggante moog yeewi askan wi li ko yóbbuwoon ca dialogue ba caisse d'avance bi taxul ñu jàpp ko tëj kaso léppañ ca biir yéen kaay ba ah. yow fa ngay xool Khalifa Sall fa njëkk leeral na gis nga ñun duñ langaamu ci yeewi askan wi ngir dëggal suñ candidature déedéet yeewi askan wi fi mu toll am nañ juróom-ñeenti candidat waaw lu tax ñooñu duñ leen wax ne fa ñoo war yeewi nee na dialogue nag man faa ko mës gëm nekk naa kaso sax dialogue caisse d'avance bi nag di tax ñu tëj ma kaso fañ maa jaay doole wàllu politique bañoon ma bokk ci ay wote rek a tax lu jëm ci wote 2024 yi nag maay gàddu ndam ko takk dar yi ba muy ut parrainage ba naka noonu diggante mook Ousmane Sonko lii yëpp wax na ko ci yéene kaay ba la mu ñu wax moom alerte yéene kaay mooy ne mouvement dëgg moo wóor Pape fa ñoo bëgg jël juróomi téeméeri junne ci ay parrain jébbal ko Amadou Ba man ma balool dem ci laas yéene kaay fekk fa njiitëram Macky Sall ma ngay woo réewu Afrique yi ngir ñu gën góor góorgóorlu ci xeex wàllu cancer fexe ba defar ay vaccin ak yeneen yi ni mel le quotidien yéene kaay ne partenariat grand challenge bil Gates financement wu lu ëpp ñaar fukki milliards ak ñeent moom lañ wax ne moom lañ cay def lépp jëm ci wàllu wi ni mel le soleil yéene kaay ci kàttu ñu kàddu njiitëram Macky Sall ca seen ndaje mi info yi ne kaay ne njiitëram Macky Sall kay fa jaajëfal encouragé ñu yëngatu ci wàllu science jéego yu ñuy def ci faj cancer ak vaccin yañ cay ut ba pare fa ñaaxit réewu Afrique yi ngir ñu gën a farlu ci wàllu wi ni mel l'observateur dëggal ko ne financement wu ñaar fukki milliards ak juróom jëm ci wàllu andi ay coppite ci fànn ak wér-gu-yaram moom la gaa ñi bëgg <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi Samba Ndiaye bi jiite woon Grand bu Sénégal njiitëram Macky Sall tekki na ndombal tànkam républicain yéene kaay moo xamal na li ni mel nag moo doon bëgg-bëgg ak càkkutéefu waa mouvement ànd defar ndoofaan ndax fa ñoo jàpp ne Samba Ndiaye fa leen a bàyyi ñoom waa bennoo yi kon waratuñ ko jox ndomba tànk libération ne faa leen di waxal Samba Ndiaye li tax njiit réew mi Macky Sall tekk ndombal tànkam mooy ne moom candidat la fa samp ndëndëm ak parti mbële di M10 ngir laaj réew mi te njiit réew Macky Sall fa waxoon lu leer na Amadou Ba rek mooy seen candidat Vox Populi ne fi mu toll ni nag ndoofaan fa ñuy <laughs> lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne assemblée nationale fa ñuy ubbi fan yi lii li ñuy wax session ordinaire unique Sud Quotidien ne faay ragal nag ñàkkante ak jàppante yu métti yu fa na a xam afim toll na assemblée nationale carte ga fa faa jaxasoo de député yeewi askan wa fa ñëw féewaloo taxaw wan nañ leen ginnaaw biir bennoo tamit candidat yi fa ñoo bëri moo tax du yomb de le quotidien yéene kaay moom fa ñoo xamal ne enseignement professionnel yétteet jafe-jafe yi du xaddu jeex moo ci am yow seetal njàngale mu kawe yi neuf pour cent ci ay école amuñ autorisation sept pour cent ay école déclaré formé tàggat amuñ sax diplôme lu baaxut leneen lu baaxut muy jàngoro ji ñuy wax cancer ween bés bi yéen kaay ne suñ ci waxut fay jeexal soxna yi de yaaw seetal xat bu yàlla sàkk junney jigéen ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar fa ñuy xam jàngoroy cancer bu bees te at bu yàlla sàkk cancer fay rey lu tollook juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay soxna ay waa ma ne vaccin la garab la ak lu munti doon góorgóorlu leen ci ndax cancer moom ñaareel moom fay